dal leen ak jàmm ci chaîne bi ngeen taamul seen bopp muy AGT News ñu wax ci résilience politique bu PASTEF di pexe boo xam ne daanaka mu ngi fay jamono jii langue politique gi fi ci réewum Sénégal parti PASTEF bokk na ci ñi nga xam ne tey moom la ñuy waxtaanee fu ne li ko waral nag mooy ne dañu jaaxal askan wi ci capacité bi nga xam ne am nañu ko ba seen kuréel gi ba léegi tasul tasar way itam mbooloo mi nga xam ne moom ñu doon doon benn say ba léegi ci lañu sax teg ci saa bu ñu soxlawee koppar ku nekk fecc ci sa gafaga mën ci table bi loole nag défi bu mag a mag la boo xam ne Pastef daanaka am na ko résilience boobee nag tax na tey ñu war cee taxaw ndax nag dafa am solo lool ci pexe yi nga xam ne ñu ngi koy lal jëmale ko ci wàllum politique. Pastef donte na tas nañu tasaar parti bi mu tukkee nag ci nguur rek Sénégal taxul benn yoon ña ca nekkoon daal di yàccaaral dee ci wàllum politique na nañu gën a taxaw ndax tolof tolof yi nga xam ne dan na leen ci làngu politique yi dafa mel ni kattan gu yees goo xam ne dañu ko dugal ci bépp patriote firnde gi mooy mobilisation bu rëy bi nga xam ne ñu ngi koy gis rawatin nag communication bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy joxante ci seen biir te siwul lool mu mel ni ñoom ñëpp ñoo bokk benn gis-gis bokkit fi ñuy xool cohésion boobee nag dafay firndeel ne tey ñi nekk ci Pastef daanaka lañu doon benn say te it exemple lañu fi toll ni ci langue politique gi fi ci réewum Sénégal saa bu parti bi soxlawee koppar ni ñu koy dajalee ngir rek jàppale parti bi daanaka bariwul liñ koy gis ci langue politique gi fii ci réewum Sénégal mën nañu ne sax guleet mu am ci ndax taf-taf ñu daal di mobiliser yi nga xam ne moom la ñu soxla teg ko ci table bi loolee day mel ni rek dañuy xëy wuti ji dépense ñëw teg yomb lool lay def ci ñoom mu mel ni connexion bi nga xam ne am na ci diggante partisans yi nekk ci parti Pastef jëm ci wàllu woowee amul dara luñ ciy sikki sàkk te loolee nag dafa am solo lool ci langu politique gi rawatina tolluwaay gi jamono ji ñu toll pexe yi nga xam ne Pastef am na ko ba di dem ba gën a dëgëral li nga xam ne moom mooy politique gi mu mel ni dañu doxalin li nga xam ne askan wi bu jëkkoon dañ koy xaar ci way politique yi tey ñoom askan wi ci seen bopp ñooy fecc ci seeni koppar teg ko ci table bi di ko jagleel way politique yi muy defi yoo xam ne parti bi daal na koy sopp ci diir bu gàtt ci tënk rek résilience politique bu Pastef kenn waru ko sofantal ndax nag dafa soppi xalaat yi soppi itam jëf yi fi ci réewum Sénégal bu ñu wootee ni ñuy mobiliser wane na beneen xarkanam ci langue politique yi jamono ji fi ci réewum Sénégal mu mel ni politique yi nekkatuñu rek di boor di bum mi waaye askan wi ci seen ginnaaw ñoo leen di wan tey yoon wi ñu wax a jaax jamono ji nag Pastef mu ngi ne candidat bi nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye mu am nag ci contexte boo xam ne dafa inédit mu mel ni lépp lu ci tukkee dafay gën a dëggal résilience bu parti Pastef loolee nar a feeñ ci langu politique gi. AGT News. Merci pour la confiance renouvelée à votre chaîne préférée AGT News. La résilience politique de PASTEF, une stratégie remarquable. Dans le paysage politique actuel, le parti PASTEF fait l'objet de nombreuses discussions en raison de sa capacité impressionnante à maintenir une organisation solide, à mobiliser ses membres et à collecter des fonds, même face à des défis majeurs. Cette résilience exceptionnelle ne peut être ignorée et mérite d'être examinée de près car elle soulève des questions cruciales sur la stratégie politique. Le fait que PASTEF ait survécu malgré des dissolutions émanant de l'État souligne une capacité d'adaptation et une perspicacité politique notable. En naviguant habilement dans un environnement difficile, le parti a su transformer l'adversité en opportunité, utilisant les obstacles comme un catalyseur pour renforcer son engagement et sa cohésion interne. La mobilisation constante de ses membres suggère une communication interne efficace et une adhésion partagée à une vision politique commune, cette cohésion interne est cruciale pour la résilience à long terme d'un parti politique et PASTEF semble avoir maîtrisé cet aspect de manière exemplaire. La collecte de fonds réussie de PASTEF constitue également un aspect essentiel de sa stratégie politique. En mobilisant des ressources financières, le parti a pu maintenir ses activités et soutenir ses initiatives malgré les pressions extérieures. Cela témoigne d'une connexion solide avec ses partisans et d'une capacité à susciter un soutien financier souvent indispensable dans le monde politique. La stratégie de PASTEF consistant à persévérer dans un environnement difficile reflète une compréhension profonde des dynamiques politiques contemporaines. Plutôt que de succomber aux défis, le parti a su les transformer en opportunités, consolidant ainsi sa position et renforçant sa crédibilité. En conclusion, la résilience politique de PASTEF ne peut être sous-estimée. Au-delà des différences idéologiques, reconnaître la remarquable capacité d'organisation, de mobilisation et de collecte de fonds du parti est essentielle pour une analyse objective de son impact sur la scène politique. Alors que Pastef parraine son candidat dans un contexte inédit, il sera intéressant de voir comment cette résilience se traduira dans l'arène électorale et au-delà. AGT News.